TMS TV. salaamaaleykum mbokk yi baaxoo safoo seetaan euh, seen site euh, TMS TV képp koo xamante ni bi euh, danga nga bëgg faju te bañ ñu filmer la moo nga xam ngay kilifa diine wala kilifa aada wala borom daraja ak boo mën a doon mën nga woote ci numéro bii 78 137 47 19 képp koo xam ni da nga am soxla ngir bëgg a faju moo xam ngay kilifa diine wala kilifa aada ak ndombal tànk boo mën a yor borom daraja boo mën a doon mën nga contacter euh, service commercial TMS TV danañ la faj te kenn du la filme TMS TV